sunu gan uh, Alioune uh, Badara Diop uh, salaamaaleykum. wa waaleykum salaam maa ngi lay nuyu Babacar. technicien lay gërëm ci teewaay bi di nuyu Georges Déthié Diop mi ñu ci waxtaan wi war a seq ak yow. yow yaay directeur général office des lacs et cours de OLAC nekkoon nga fi directeur ONAS itam ci jamono. waaye sa teewaay fii en tant que adjoint maire bu Ndar Mansour Faye ndax coow dafa juddu fan yi ci mëbët buñ leen nee da ngeen ko am ci euh, xàllu gën a mag ca Ndar di avenue général de Gaulle da ngeen ko bëgg a tuddee Macky Sall euh, président de la République waaye surtout Gora Mansour Faye meeru Ndar euh, coow loolu moom lu leen bett lam déet ba ba ba mébét bay jóg xalaatoon ngeen ni dina toll fi yam waaw ah, merci beaucoup nga may ma d'abord ma nuyu ñi déglu ñëpp effectivement bi bi ñuy door euh, bi ne initiative boobu peut-être nga may ma ma wax fu mu jóge si le temps le permet xam nga Saint-Louis dès que ñu toog rek coowu changé tour yi xam ni euh, dañu jë euh, voie yi xam dañ ko tuddee ay colonisateur wala esclavage dañ ko fa fekk au début xëy na toog nañu lu yàgg bougé wuñ si lu bare mais bi affaire George Floyd amee da doon difficile trop ñu toog bañ yëngatu xëy na si si effectivement si le monsieur le maire mettre en place benn commission boo xam ne conseil municipaux yi ñoo ko ñoo ngi si mais élargi aussi aux populations population bi maanaam le président des délégués de quartier le président des conseils de quartier l'IA le CRD CRDS mooy ex-IFAN entre autres même les imams aussi étaient représenté xëy na donc bi coow li euh, si commission boobu ñoo def ay proposition proposition bi effectivement euh, mu l'une des propositions moo doon ñu tudde avenue Général de Gaulle le président Macky Sall euh, coow change tour nag yàgg na si ndar ça il faut le dire parce que bu ñu fàtte ni Saint-Louis dafa am ñu nostalgique ma jël rek ñaari nat bi ñuy change turu rue André bon di ko tuddee Khalifa Ababacar si am na ñu doon coow bi mujj bi te euh, André Lebon c'était un ministre des colonies de la France bi mujj bi aussi mooy bi ñuy jël la route Alfred Dott qui était un général français même né à Saint-Louis di tudde tali bi euh, Serigne Mourtada Mbacké boobu tamit coow am na coow boobu sax mi ngi am ba léegi yan saa yi kenn yëkkati loolu en conseil municipal wala en bureau municipal c'est pour vous dire que coow li bettuñu mais am nañ ay argument solide yoo xam ne moom moo tax ñu gis ni voie boobu président Macky Sall lañ ko war a tudde incha allahu rabbi waaw lu tax lu tax Macky Sall euh, lu tax wu leen ko ma Masseck Ndiaye mi fi nekkatul te ne woon maire Saint-Louis nekkoon sa xaritu Macky Sall lool Golbert Diagne mi fi bawoo daaw ak ñeneen ak ñeneen lu tax rek Macky Sall lu ko lëkkaleek ndar moom Ah, merci beaucoup. Macky Sall, je que qu'on n'a pas besoin de faire recherche pour xam Khamka. Mais pour ko pourquoi Macky Sall Nous avons ah, Mansour Faye. Non, deug ah. la Mansour Faye, mais aussi madame la première dame, itam mooy président de la République du Sénégal. Taxu ko don ndar ndar. Wa moom laa lay wax hmm. euh, kin kay dindé isine tuddu du ndar ndar ndax général de Gaulle lañuy changer turam pour tudde ko président mais pour revenir ci li nga wax Ousmane Masseck tudde nañ ko route parce que tey jii suñu jëlee la boulevard muy dekk digg bi tey mooy boulevard bi gën a guddi si ndar feu ma Masseck Ndiaye lañ ko tudde ah. maintenant pourquoi Macky Sall ndax bi ñu tegee commission bi rek ndar yëpp yëkk dañu commencé am beaucoup de demandes pour ñu tudde ko demande bi wax nañ ñu tudde ay sëriñ mais ñëpp xam na ni Sénégal il a on a un islam euh, confrérique day jafe trop nga tudde ko benn si gidd yooyu su waxuma nag amuñu mérite mais jamais day jafe nga tudde kasi sinon risque de créer maanaam division si population bi ñu itamit ay famille religieuse yu màgg am na ndar yoo xam ni moom mën naa wax sax ñëw liggéey si islaam dugg Sénégal mais famille yooyu aussi day jafe nga tudde si kenn am nañu ay mérite donc bi bi commission bi jotee ay demande maire aussi jot ay demande ñi ko jege aussi jot ay demande donc il fallait ñu trouver une solution qui unit tout le monde et le président Macky Sall président de la République du Sénégal Saint-Louisiens yi di ko jox voix depuis muy door élection ba tey nu pensons et man je suis convaincu que moo gën a unir euh, euh, les conditionnalités pour ñu tudde ko pour éviter comme li ma la waxuma nag ñi ko ndax commission bi ñoo ngi may dégg ay waa Ndar ñoo ngi ñuy dégg ñu doon bind ñoo ngi ñuy dégg ñun ñu doon demandé ñu tudde ko muy guide confrérique wala guide religieuse waxuma mérité wuñ ko mais pour nga tuddee ko si kenn day indi jafe-jafe. mais bu ko seeni prédécesseur defee jox benn euh, yoon sëriñ Babacar Sy ak sëñ Mourtala euh, indiwul coow donte sax nee nga waaye ñoom ñooñu la ñu gën a accepté jamono ji ñu nekk nii pourquoi pas ñu jëlaat ñeneen tudde leen ay yoon. non boobu indi na coow. xam nga coow li léegi jamono ji ñu nekk nii. waaw xam nga jamono ji léegi il faut pas euh, bu nu fàtte dafa am lu nuy wax les réseaux sociaux ki aujourd'hui font que dara su xewee rek day day day day day taal a egg mais coow li c'est pas coow Saint-Louisien saa yu fu ñu wax ka ndax ñi doon woote di woote fu nu bindee seen Facebook yi wax non non du nu am sax dix commentaires wala vingt commentaires. le conseil municipal dañ ko convoqué woon samedi pour mu décider si mais puisque bi ñuy convoqué arrêté ministre de l' intérieur interdisant les regroupements génnagul woon donc bi nu dajaloo samedi ñu changé ordre du jour mais looloo tax ñu changé parce que dañu ni euh, suñu voté wul suñu budget dañuy euh, du ñu respecter les conditions minimales ba mën bénéficier bénéficier si PACASEN et on risque de perdre cinq cent millions bi ñu ñëwee. am ay conseillers yu proposé ñu étudier boobu ordre di jour rek renvoyé yeneen yi mais mu ngoon si ordre di jour bi ñi ko contre ba nu wootee indiwuñu dix nit ça il faut le dire maintenant il y a une euh, transgression de ce qui s'est passé par une certaine presse parce que ay jeunesse su le maire plus précisément ak sunu ay jeunesse ñoo ñëw di marche di wax Saint-Louis dit oui ndax ñoom dañu soloon seen t-shirt banderole di wax Saint-Louis dit non. waaw mais non mais monsieur Diop. Mhm. Euh, euh, boobu daal ci seetlu. Mhm. Sénégalais yi mel na ni ànduñ ci ñun dañoo foogoon ni sax boo ñëwee fii dangeen ngeen naan yéen ngi koy xolaat da ngeen ci allié mais <laughs> euh, fi toll nii yéen fa yéene wu leen fomm loola abdu juuf mi nga xam ni nekkoon na fi président nga xam ni léeg-léeg sax mu dem Ndar noppaloo fa. ak li mu fi def ak yëpp ak ndar mu jàngeek ñoom seen xalaatu leen ko lu tax Macky makki nag. waaw euh, d'abord abdu Diouf tudde nañ ko dara si sunu magistère école ba mu jàngee tuddee nañ ka ko euh, maintenant lu tax Macky Sall ndax Macky Sall li mu defal ndar dafa bari xam nga ndar su wax ndar ñetti entité la Soor Lille ak Langue de Barbarie loolooy charme ndar Langue de Barbarie géej gi dafa nekkoon a deux cent fekk fi président yëpp Senghor Abdou Diouf Ablaye Wade géej gi di ñëw ñëpp dinu nu seetaan géej gi di ñëw ñëpp di nu seetaan bi Macky Sall ñëwee la géej gi dal suñu kaw moom moo fi taxaw jàppale ñu indi fi le président Macron indi président Banque mondiale ba aujourd'hui réglé nañu mën nañu wax am nañu financement pour regle problème yooyu daan def digg bu protéger ndar yëpp daanu teggi doomu ndar yi dëkk si booru dex gi te te géej gi te tey suñu tëddee du nelaw tabaxal leen ay kër def ko fa. digg yi moom bu ko wax ndax sotteegul ba léegi. waaw waaw mais lépp loo gis ak da nga koy tabax xam nga loolu moom c'est normal beneen bi tamit mooy yeneen yi mu def bare na du ma wax waxu Promoville du ma wax leneen dama si indiwaat rek si beneen bu ndaw ndar dañ ko xamee woon inondation su nawet daan jot genn wàll. mais xam nga boo toogee naan li Macky Sall defal ndar. Mhm. bu laajee réew mi jox ko ko kay defal ko war. muy ndar ak feneen est-ce que war na ci am lu extraordinaire lu war a tax ñu tuddee ko xàll surtout xàll woo gën a mag ca dëkk ba. waa xam nga loolu jëkkiwu fi ndax tey jii euh, le PDS si règne Ousmane Masseck maire de Saint-Louis tudde de place bi gën a mag ndar Ablaye Wade. taxul mu jaadu. waaw xam nga loolu itamit. je vous le conseille taxul mu ah. c'est pas parce que ñeneen def nañ ko yéen itam ngeen ñëw def ko. non xam nga tey li ñu siy bëgg wax parce que da ngay gis ñoo xam ni peut-être euh, j'aimerais même qu'il sa fas compter ba ñu xam lan nu représenter mais pour moi ils ne représentent pas ils ne sont pas représentatifs à Saint-Louis fekke woon loolu te kaasuñu si au contraire sax boo continué ko voté. dangay ngay tontuwaale ñi nga xamante ne ñoo ne dañu waroon euh, président bu nekk en exercice waruñ koo tuddee dara. waaw te ñoom ñu def ko ñu def ka ñoom ñu fekke ko def ka voté ko te intellectuel Euh, waroo rek di raisonne par rapport sa haine wala sa sa amour envers quelqu'un intellectuel li ngay wax da nga koy war a teg ci ay firnde mais tey jii mën na nañu wax président en exercice ñu tuddee ko man gisuma ci dara lu si nekk. deuxièmement nu amee président ba dëkk yi nu wër di ko jox cër boobu di ko tudde ay voix je ne vois pas en quoi sunu ay euh, les villes du Sénégal. war a am problème pour de un président en exercice ñu nekk ñu si yoonu reculer si loolu parce que comme je le di ñi si nekk di wax ils ne sont pas représentatifs de saint ñeen ñenn ñi xam sax Saint-Louis soo leen laajoon tey xëy na lu mat juróom waaw réew moom ñëpp a ko bokk. waaw foofu ñu ci toll. <laughs> am déet. waaw mais xam nga c'est je suis d'accord que ñëpp si bokk mais ku ñëwul Saint-Louis xamoo si Saint-Louis bëgg nee sa contribution wala génn dans la presse ça pose problème. alors que on les voit difficilement ñoom ñu wax si dëkk yi mais pour revenir rek sur la chose nga xam ni li nu gënoon tax a jóg mooy l'affaire de George Floyd ne pouvait pas nous laisser ñu croiser les bras. mais George Floyd googu mooy euh, noir américain boobu ab policier nit ku weex rey ci États-Unis effectivement li ci njëkk am répercussion ca ndar mooy statut Faidherbe ba dañ ñu woon ngeen teggi ko def. Euh, Euh, sëñ siñ fa convoqué woon ca jamono colonisation ba mbaa ngeen sàkkal ko roye dindi ko fa yéen ba loo loolu mosu leen cee réunion wax ci amu leen ci benn ma bët waxu leen ci dara euh, ba pare bëgg a jël aw xal di ko tuddee Macky Sall <laughs> si si Babacar euh, d'abord il faut dire place boobu xëy na sax dindi woon nañu statut bi balaa George Floyd di am ndax dañu waroon def ay liggéey defaraat mais day jafe sancaat ko ba mu ci waaw mais loolu ñi ko doon wax nañ ko tuddee benn sëriñ surtout euh, Serigne Touba la yàlla na yàlla yokk leeram euh, si bi Mamor Mbacke ñëwee ndar dafa ni place bu nuy caaxaane kenn waru ko tuddee cheikh bi xëy na looloo tax wax ji tegu teg teg ko fële moom mais statu bi dindi nañ ko te changé nañu tur bi waa ndar bi itamit conseil municipal moo dajo commission bi sax loolu jëkk réglé commission bi maire def li mu jëkk réglé mooy place Faidherbe ñu teg si yii voie yeneen voie daan si yokk maire yi fi nekk yëpp yu mas jaar ndax depuis l'indépendance bi ñu defee recherche ñaar ñoo si amul woon tur ñu proposé ñu tudde leen tudde bi donc dañ ko teg si légitimité ay ñoo xam ni dañu am nit doomu ndar yi toog jox leen seen kàddu ñooñ leenu jiital pour tudde leen voix maintenant comme je l'ai dit euh, conseil municipal bi mu dajaloo samedi bi sax ban ko naree changé ñu bari d'accord ñu si parce que ñoom pare woon nañu pour voter ko donc daal loolu laa si mën a pour leeralal la rek que Saint-Louis posé wul benn acte pour wane ni il est contre. est est-ce que du kuje moo leen ci yóbbu ab laay tudd nañ ko fa bërëb Macky Sall itam faaw euh, ngeen topp ci yoon wu nga xamante ne moom la ñu la newe woon. non ñun wujjewuñu ñun dañ amoon ay défi dama koy gàttal noonu rek Macky Sall président Macky Sall duñ si jàppale. benn bi man maan dañu jël la basket basket toog nañ fukki at. di gagné coupe yi am Dakar yëpp man mi nekk naa président Saint-Louis basket stadium ba nu am moom lañ doon basketé avant indépendance dara changé aussi xëy na ba ma ñëwee maa defaraat tuuti gradin yi président nar ñu jàppale jox ñu lu mat 4 milliards pour ñu tabax palais de sport nga jël stade Maître Babacar Seye loolu tamit président nar ñu jox lu ëpp 11 milliards pour ñu defaraat ko wax nañu waxu inondation yi wax nañu waxu sunu ndar charmam mooy ñetti. tànkam yooyu soor. la xew Pikine booy dugg ndar de yéeme na te dégguñ leen ci xanaa est-ce que loolu waroon gënoon a nekk yitte que ay tuddee ay mbedd. loolu ñoo ngi si xam nga euh, je pense que li ngay wax mooy problème mu eaux usées yiy wal xam nga loolu euh, dan ko hérité mais au du heure bi may wax ak yow waa Pikine xam na ni ñoo ngi fay dérouler un projet assainissement buy jël eaux use yi ak eau pluviale bi te su réglé woo incha allah loolu sera un mauvais souvenir. dëgg la nag nit ku dëkk si ndox yu am xet nga koy wax xaaral day metti moo tax maa ngi leen di masaw mais nu xam ni taxaw na nañu fermement pour régler sa problème définitivement. est-ce que tey comme coow li jib na. Mhm. yaakaaru leen ne boo leen dajewaatee war ngeen euh, remettre mbir mi sur la table. Euh, donte sax yow yaa ngi naan ay ñi ñii coow ci réseaux sociaux yi la mais dañ leen di déggu aussi. je suis d'accord daan teg xam nga coow li. foog ñu tekk si table ndax dañ koy yóbbu au conseil municipal mais ña nekk conseil municipal kàddu askan wi moo leen fi indi ñooñu ñooy toog ku nekk à ton âme et conscience nit ñu am responsabilité la nit ñoo xam ni du du du da nga leen di xëcc si dara foofu ñu toog euh, doon ñu ko euh, maanaam signature tegu leen fa dañu dem élection ñu fal leen ñu ñëw toog fa ñooñ suñu ñëwee daan daanu xool ndagam dañuy voté oui wala dañuy voté non mais man awma benn Euh, inquiétude que Saint-Louisiens yi xam ne ñoo ngi ci terrain politique wax ma Saint-Louisiens nag yu toog Dakar di ñëw une fois par six mois nekk si réseau yi di bind mais Saint-Louisiens yi dëkk Ndar di am seen kàddu man aw ma inquiétude réseau yi tamit bul ko bul ko soofantal waxukaay la. <laughs> xewul woon xew na léegi. mais beneen affaire mooy euh, gis nañ ni Mary Teuw Niane mm-hmm. ancien ministre nekk mm-hmm. jamono ji président conseil d' administration Petrosen. Mm-hmm. nekk candidat maire Saint-Louis. Mm-hmm. bi mu xëyee démb ci Facebook am. am lu mu yàkkul Mansour Faye ak yéen ñi ànd ak moom nu ngeen di réagir ci loolu moom soo Faye ba mu ko jàngee lu mu xalaat ci kàddu yu tàng yi nga xam ni euh, Mary Teuw Niane yëkkati na ko jëmale ci moom démb ci mbirum euh, tuddee Macky Sall xàll woowu. bon man moom liir naa ko mais pour être honnête échange wu ma si. ak euh, le ministre Mansour ndax dem mi woon conseil des ministres après dafa amoon inauguration man aussi maa ngi woon si yoon wi pour ñëw euh, egg si émission bi que je vous remercie au passage mais c'est vrai que ce sont des mots qui nous ont personnellement moi qui m'a blessé parce que traiter les gens de petits gens c'est blessant mais petitesse nit kenn du ko natte si ay idées si ay actes lañ kay natte te leen natt bi gën a mën a natt mooy. ngay exprimer sa haine wala sa adoration uniquement si sa ay intérêt ndax ñun j'étais là bi ñu ko dooree nommé mu ñëw di tagg Mansour ba jour boobu su Mansour gëmul woon yàlla day wax moo ak ay sëtam àjjana la ñu jëm tey jii nekkatoo ministre tu insultes les loolu looluy petitesse mais nous on n'est pas petit ñun fi ñu nekkoon lan taxaw on est fat ça nous a blessé ndax aussi c'est un professeur émérite du loolu lan yaakaar si moom mais traité les gens de petitesse mais mu xam ne ñun xamante nañu te li mu doon wax bi muy tagg Mansour ba ñu defee sot Mansour yi àjjana la jëm moi j'étais là-bas et d'autres collègues étaient là-bas il était accompagné de son épouse donc tey dafay yomb trop nga ñëw bind traiter gence de petit est-ce que euh, sorti woo euh, Mary Teuw Niane ci réseaux sociaux yéen a bokk langue politique est-ce que loolu wonewul réellement que même ci seen biir l'idée ne fait pas l'unanimité ñun ñu am unanimité unanimité amul dans un champ politique démocratique loolu il faut ñu xam même effectivement suñu benn bokk yaakaar bi am na ñu si àndul mais comme aussi biñ koy proposé ay opposition ñoo ngi si commission bi il n'était pas contre il n'était pas contre astafurlaa ñu tuddee dara Macky Sall xëy na dëgg la commission bi dafa wax Macky ñu jël lu mat ñetti projet yóodul ko maire maire pour décider autant am na ñu nekk si ñun ñu si d'accord autant am na ñu nekkoon opposition te contre ñu ko donc unanimité ñun cherché wuñ mais dañu trouver que Saint-Louis dafa am ay défis yu mu doon supporter nu jël rek l'île de Saint-Louis l'île de Saint-Louis màggat na tali yi di yàqu avant l'indépendance ba ren président Macky Sall moo ñu jàppale ñu war a def assainissement bi war a defaraat tali yëpp moom si bopp mu ñëw lancé ko euh, je pense c'était en janvier 2019. loolu waru garam de. waaw mais nag ñun dañu dañu yare si. du sarax du maye. d' accord nañ président la république. d' accord nañ mais hmm. nag xam nga soo amee ay président jàppale wuñ la si dara kii ñëw jàppale la laaj na nag yow tamit nga euh, leen nga delloo ko njëkkal peut-être ñun noonu la ñu gisee. maanaam Laay Wade ak Abdou Diouf ak Senghor defuñ fa dara. bon waxuma loolu <laughs> j'ai pas dit ça mais nos défis les plus principaux à Saint-Louis si Macky Sall la ñu commencé ñëw di ko relever et que aujourd'hui Saint-Louis était dans un état comme ni ma ko waxee ay écoles yi màggat. koñ ji màggat tali bu bees amu si amul éclairage publique bi difficile euh, comme ni mu la ko waxee stade yi ñu doon footballé moom la ñu doon avant indépendance stade yi ñuy basket moom la ñu doon avant indépendance ainsi de suite prix ñu on était même menacé de disparaître et dans des revues scientifiques c' était écrit que Saint-Louis est menacé de disparaître. pom bi nag euh, moom day wéy di tudd Faidherbe bu du gën ko soppeem. tuddee ko ku ne ci réew mi wala ku fi newoon. commission bi day eggale liggéey. nee naa leen dafa jëkk génne. est-ce que mën nañ xaar pont wu Faidherbe bu changé tur am turu waa réew mi. waaw xam nga su ma damay bañ rek commission bi wax ni dañ leen jiitu seen mais li ma la bëgg wax rek si nattal bi ñu jëkk ñu ñëw génne place Faidherbe tey jii ñoo ngi si ay yeneen rue ay rue de Paris ak ay avenue Général de Gaulle euh, tubaab yi ndagam ñoom si boppam moom nga mooy li ma wax bi George Floyd amee ñoo doon changé seen dëkk yi tur yi xam ni ay. colonisateur la nekkoon wala esclavagiste wala université. di wantul moo jekk ci sa xalaat tuddee pont bi euh, dindi fedal bi teg fa keneen wantul nga yaakaar ni moo ci gën a jekk. val <laughs> ba rek ba mu fay si wax di wax manque la envers mes ma rek dama la ko ñaan rek. Mhm. wala ma la ma ñaan loolu. Cheikh Abdoulaye Dieye allah wahidun bàyyi Cheikh Bamba Dieye ak ñoom Golbert Diagne itam noonu lu nga ci benn mëbët. à part Golbert ñooñu ñëpp ngox tudde nañ leen Cheikh Ablaye Bamba Dieye tali bi gën màgg jaar biir Gendar moom lañ ko tuddee ma ngoog jërëjëf euh, Alioune Badara Diop adjoint au de Saint-Louis directeur office euh, des lacs nekkoon directeur ONAS jërëjëf